ko loxo fële ca Tamba ci joote goo xam ne amoon na ko ak gendarme yi laata mars 2024 yow ak sa njaboot ci wàllu politik daan ngeen naxarlu yi mel ba jàpp ni sax jëf yooye dëppoowul woon ak réew moo xam ne tegu na ci démocratie wala ci république bu normal laaj bi mooy ndax mbirum Bougane Gueye dani jàpp nga ni deltu ginnaaw la ci wàllu démocratie ci sa ndorteelu magistère ci boppu réew mi jërëjëf jërëjëf ci sama prestation de serment bi ma doon waat engagement bi ma jël ci sama discours mooy bu soobee yàlla su may joxe la ngi ci réew mi ñu gëm-gëmal ko ci bi may dem ak ci ba may egsi Sénégal bu ne dina mën a teg loxoom ci lu leer ne avancement am na ci démocratie Sénégal li xew Bakel mën naa leen wax gannaaw njëkk leen ko yëg ndax dañ may rendre compte automatiquement maa ngi yéen ci yem dafa am loo xamante ne nekkul ci sama loxo mooy sama kaaraange dafa am ñoo xamante ne seen responsabilité la am na loo xamante ne seen cër googu mënuma leen ko deflu ndax kon bu ca défaillance amee peuple sénégalais bi dina leen ci ngañ fii Dakar chaque jour ma génn fi bu demoon ba saa yu may génn ku ñu ne taxawal ba président jàll nga ne président day doxi soxlaam damay doxi sama soxla kon man mii askan wi yónni di ma xaar te yàkkamti ma dinaa tardé te sama responsabilité moo ëpp ci réew mi kon taxawal xaar président génn ci foo xamante ne am na déjà jafe-jafe déplacement ndax inondation la nga bëgg dem seeti jay sinistré yoo xamante ne maa ngi doon dem ci boor boobu kuñ ko wax wala digg yàlla war nga mën a xaarandi tuuti te maye loolu ba ñu dem lenn rek a ma metti mooy dem naa gis naa condition yi nga xamante ne ci la ñi nekk ci région Kédougou ak Tambacounda di liggéey muy force de l'ordre muy armée bi muy askan wi jafe-jafe yu mu nekk waaye muy tamit administration territoriale bu mu tax acteur politique yi may doon woo nañu fàttaliku ne kër dañu am responsabilité boo xamante ne exemplarité la war a nekk ci respecte charte yoo xamante ne buñ ci tonkulee jéeye mën na am musiba mën na am ku ne xam na fa président dem dëkk ji dina am ay mbedd yu ñu baare waaw bu ñu baaree ay mbedd am ndox moo xamante ne kenn mënatul doxee nu mu nu mu la neexee président nekk fa ay convois yu gudd dama ko yàlla baal ndax autorité régionale yëpp dañuy dañuy génn muy préfet muy sous préfet topp sama ganaaw ak ñeneen ñi. ngay ñëw bëgg a dugg ak bu gudd bu ñu la nee xaaral ba président génn li nga war a nangu la maintenant yoon a ngi def liggéeyam man ku ma indil kaamil ci saa su naa la mën a waatal ne que man du ma gàllankoor yoon. ndax loolu laa waat ci kanamu Sénégalais saa ñu ma interpellé jox ma information que dara xew na ci wàllu yoon benn attitude laay am def leen seen liggéey donc ci loolu laa ci mën a yem en attendant présomption d'innocence la am yoon dina def liggéeyam yaakaar naa ne bu dee moom liñ koy jiiñ amul yoon dina ko bàyyi nu mu ko bàyyee woon bu mu ko woowee te bàyyi ko bu defee nag yoon mooy wax ne def na mooy xool tamit lan lay teg ci kawam waaye man ci sama bopp li ma koy ñaanal mooy ay jafe mu gaaw a jeex ba mu delluwaat ci njabootam. merci beaucoup monsieur le président kon ñu jox euh, kàddu gi ki nga xam ni moo di Issa di wax ci turu Walfadjri. voilà ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam. di la nuyu bu baax président de la république du Sénégal monsieur Bassirou jomaay Diakhar fay sama laaj dama koy jëmale ci li nga xam ne sànq yaa ngi koy wax muy ay kàddu yu ñagas yoo xam ne dañ koy faral di dégg ba ci sax xëy na loo xam ne mën na indi ay jéye ci réew mi ngay évoquer réseaux sociaux ñu am loo xam ne gis nañ ko ces dernières quarante huit muy koo xam ne da nga ko nome bi nga ko nommé ñu toog tuuti gis ci réseaux sociaux yi ay nit di ñaawlu nomination bi nga xam ne moom nga ko nommé mu di PCA bu euh, SNHLM nit ñooñu après ñenn ñi di ko minimiser mais dafa dem ba law ba ci ñi nga xam ne xëy na ràññee nañ leen lool ci biir parti bii di Pastef te nga bokk ci démissionné woon ci sa secrétariat général bi nga xam ne yaa ko jiite woon sànq yaa ngi koy souligner est-ce que euh, Samba Ndiaye bi nga xam ne moom lañ nommé da ngeen ko fas yéene teggi ndax dégg nañ sànq premier ministre Ousmane Sonko mu bind ab bataaxal am lu mu wax ne des mesure correctives seron apportées mu ne loolu lan lay tekki ci mesures corrective yooyu le bu ngeen ko teggee ci poste bi mu nekk est-ce que du wane que ni président de la république dañ koy def pression pour que su su fekkente ne dafa jël ay dogal jërëjëf. commentaire moom naa la ko bàyyi que moom annoncé na ay mesures corrective xam naa ne boo bëggee xam mesures correctives yi muy nekk moom lañ koy interpeller ndax propos la waaye li ma bëgg a wax mooy dama nangul ñuy wax que ñu bokk ak man làng wala ñu bokk ci sax ku gi ñu bañ a d'accord ak man. ci li nga xamante ne moom laay teg comme ay acte bés bu ne te ñu am droit tamit wax ko que mu nekk opposition ko mu nekk samay propre partisan dañu am droit am désaccord ak li nga xamante ne maa koy posé comme acte parce que dañ ma dénk lu ñëpp bokk ñëpp a teg ci seen bët war ko watu am ci seen kàddu en tant que citoyen loolu mooy démocratie ma nangul ko ñëpp nag li ma bëgg a wax rek ci coow li puisque coow am na mooy dafa am fu ñu jëlee Sénégal wax naa ko sànq ci message bi ma doon def te lu ko waral mooy wooteeg jàmm dafa am fu ñu jóge am ay féewaloo avant élection njaboot gi sax biir famille ñu ne am na ñoo xamante ne ay frère ak i sœur ay waajur ak i doom waxatuñ ndax politique yàlla dogal changement régime am ñun ñi doon ñun ñu ñu doon buntu xatal di ñu teg lu ne te mu tegu woon lu dul lu dul ne bëgg a sa nguur ñu am matug am esprit de dépassement ki nga xamante ne bokk na ci ñi gën a sonn muy président Pastef premier ministre actuellement Ousmane Sonko taxaw Grand Théâtre ne lépp loo xamante ne def nañ ko moom ci boppam baale na ko muy jëfu jullit ndax ku ko xam-xam ne bëri na lu muy wax ne royukaayam ci wàllu politique yonant bi la sallallahu alayhi wa te lu ne teg nañ ko ko mu am doole feyu baale waaye foofu sax sori na Afrique du Sud gii bi apartheid amee ñu def seen commission vérité réconciliation esprit de dépassement Mandela la bañ a fayantu moo tax jàmm am tey ba sax fa ci Afrique du Sud kon ki nga xamante ne baale na ne baal naa lépp luñ ma def lépp luñ ko def ak nu mu metti metti la ak nu kàddu gu ñaaw ñaaw ak luñ ko teg teg teg te yàlla xam na ne daj na mu amaat leneen loo xamante ne dañ ko war a suuraale ci projet bi nga xamante ne moom la ñuy jaay sénégal yi ba ñu jënd ko teg ñu ci kaw réew mi mooy dañ ñoo wax ne dañuy def appel à candidature ci poste yi commencé na ak la commission nationale des droits de l'homme projet de loi bi ma ñëwee fekk naa ko assemblée nationale dañ ko jëlaat dugalaat ko yokk ci ci buñ koy falaat day am appel à candidature te ñu ngi ci procédure yi bi bientôt ngeen gis lancé nañu ko kon boobu ñoo ko ci dugal niñ ko nar a dugalee ci yeneen post waaw buñ ko dugalee est dañ koy